jëmmi xol bi nga xam ne nag bu yàqu lépp yàqu bu defaroo itam lépp defaru nu war a tàmbale tey ci li mu wax ne wa xifduna al alsuna min aw wa min faxshaa'i أوجبه الجبار ذو السماء ومن قبائح الكلام واليمين ajmain والطلاق عوها wax ne وغنب saw سولامين ba benn kaddu bu ñaaw du ci bàyyi ko loolu su borom da ko waral farata la farata la ci jaam bu ne rawatina ab nit wax ju ñaaw kenn ku ne war naa sàmm kàddoom ba eh, du bàyyi ko ci làmmiñam wax ji nga xam ne nag wax ju ñaaw la wax yi nga xam ne ma bàyyi ci kàddu nag wax yi bàyyi ko ci làmmiñ nag lu bare bare la yoo xam ne yu xaraam la moom ku mel lu mel ne jëw te mooy tudd ab jàmbur wax ca loo xam ni bu ko déggoon mu naqari ko te muy dëgg loole mooy jëw rambaajet lu bona bon la ci sikki làmmiñ yi la bokk te mooy waxal ay wax jële ko ci nit jëme ko ci jeneen jëmm ci anam wu yàq moo tax làmmiñ moom bari ay sik lol te mata gëna dona taxaw ndax lamiñ doon naa ko junj keroog dafa gëna yomb manam lamiñ ci jëfëndiko tank yi boko ko doon jëfandikoo ci dox bu yagge nga son loxo itam am na koy jëfëndiko bu yagge da ngay waye lamiñ du gawa son manam dafa yomba jëfëndiko te woyof te neex yi loolu nag moo tax moo gën a mat a jëfe moo gën a mat a tënk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama waxoon Seydina Muaz ba ko Seydina Muaz waxee ne ko lu ñuy wax amit ndax dañ ñu ciy topp yonente bi ne ko sakilat ka ummuka ya Muaz wa hal yakibbu nnaasa ala nnaari illa hasaidu alsinatihim aw kama qala alayhi salatu wasalam moy ñi nga gis ñu du ngo biiti seeni lamiñ mo len fa mo len fa tabal waxon na ni nit ki benn baat rek lay wax dugg ci lislaam sëñ tubaab mii nu benn baat rek moo nu booleeg moom mooy jekk ci dogu ci jébbal ko suñ bopp fas yéene topp waaye li lay génn ci lislaam benn baat kese la boo xam ne boo ko waxee génn nga sëñ Tuubaa li lay teqaleeg moom noonu benn baat la boo xam ne foo ko waxee di génn nga ci sëñ bi moom bokkutoo ci murid yi moo tax làmmiñ bokk ci nga xam ne bunt la boo xam ni bari na xol ak nit ñu am jafe-jafe te làmmiñ moo leen koy indil moo tax nag nit yàlla yi sëñ Tuubaa daa li lim danoo danoo jangal rek li l'islam jangale te mag ñu bax ñi da ko jang asrafu salih da ko jangale gis nañ yaronte bi sallallahu eh, nit nit mas na ko laaj ne ko lan nga gëna ragal ci man ci sama ciri yaronte bi japp ci làmmiñu boppam ne ko ki de ragal ci yow waaw muy ndax ko dugg mo la mo la duggal Eh, am na waaju baax kuñ da wax yunus ibnu ubaydillah yunus ibnu ubayd rek rahimahullahu taala dara wax ne man seet naa sama jëmm ji ak sama bakkan lu ne àttan na ko gàddu fekki koor mën naa nekk ci jamono yi gën a tàng nga xam ne ci la koor gën a métti fi ne day day woor koor gi sax mën naa neex ci moom waaye nag génn ci lu yoonam nekkul loolu moom mënu ko am waaw te loolu lu bari la ci nit ñu baax ne gis ku baax lool mën a jaamu yàlla lool si jafe-jafe bépp ci làmmiñ ñu lay def ndax day jëw te jëw imaamul Ghazali dara wax ne wax na ko ne eh, sai xasanul basri sayidna xasanul basri xasanul basri <coughs> imaamul Ghazali sax wax ne jëw mi ngi mel ne li nga yor ci lu baax nga di ko def ci ay palaat di tibb di joxe koo jëw rek am nga loo ko tibbal ci saw yiw koo jëw rek am nga loo ko tibbal ci saw yiw moo tax xasanul basiri nag daa wax ne man bu ma doon jëw kenn sama sama ndey lay jëw lay jëw ne yéene sama yiw waaw ma la gën a yéene sama sama sama sama yiw kon Eh, sàmm saw làmmiñ loolu dara dar dara gënu koy farata ndax sikk yu bare bari rek bare bari mooy yàlla yu bare bari làmmiñ ko jur waaw te ginnaaw yow bu fekkee yaa ngi jëw yaa ngi saam say say say say say say rafet rafet say yu baax ay gis ko xam ne dëkk ci liggéeyu sëñ bi masalan lu baax lu ne mu def ko fu ñu woote mu dem alalam waxtu ne mu koy jël waaye bu fekkee da nga dëkk ci jëw waxtu ne loolee nga doon def yaa ngi koy saam di joxe fi koo tudd rek wax ca moom am nga saam boo yëkkati jox jox ko maanaam saam nga ci sa ci sa ci lu baax lu bare bari jox ko waaw moo tax jëw may moo tax wax nañ ne xasanul basri Euh, Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak kon moo daan wax loolu moo daan wax ne man bu ma dee bu ma doon jëw sama ndey lay jëw ndax moom la gën a yéene sama yiw Xasanu Basri moom dalaa wax ne dafa dañ ko mas wax ne ko diw de am na baat yu mu wax ci yow dalaa jëw togg gu neex yàkkal ko ca mu togg togg gu neex yàkkal ko ca waa joojee ko doon jëw ne ko yow ko dama dégg ne danga ma jox say say yiw te loolu am ci man solo lool moo tax daal xéwal gi ma yónnee la ko <laughs> moo tax làmmiñ moom mooy li gën a gën a gën a lijjanti ku mel ne imaam al-Ghazali dana ci tudd juróomi mbir yoo xam ni yoo xam ne moo ci mat a bàyyi xel ba ci njëkk mooy làmmiñ eh, wax nañ ne cër yi buñ xëyee suba cër yépp dañ koy woo làmmiñ nan suduka allaha an tastaqima ñoo ngi lay ñaan de nga tegu ci yoon jub bañ a dugg lu sa lu sa yoon nekkut ndax fa innaka in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna ne ko yow boo jubee nu jub waaw boo nekk da ngay gis koo xam day xëy suba ci làmmiñam mu wax ci benn mbir moo xam ne dañ ko ci yóbbu police ya-, yenn maanaam nga xam ne bëccëg yëpp ci lay yenn nekk ci police bay lijjanti maanaam cër yëpp dañuy ànd ak moom loxo yeeg tànk yëpp danañ leen di fodong yow dugal leen ci kaso bi bu ko dee nag mu nekk ci lijjanti boo xam ni baat yooyu mu waxoon bu ko waxutoon euh, mën na mën mucc moo tax làmmiñ moom moom te te te ni mu amee jafe-jafe boobu noonu lay jeexitale itam làmmiñ wi li ne ci xol bi rek moo ci feeñ euh, moo tax euh, kooku mu ñu ko wax Dinaar danaa wax ne boo gisee sa xol woow sa xol boo gisee mu wow nga xam ne dara mënu ko tooyal nit mën ta waare ba mu dugg la wala nga gis sa yaram néew doole walla nga gis sa wërsëg wàññiku nee na na nga xam ne bul sikk ne da nga am baat yoo wax ci mbir moo xam ne sa yoon nekku ci maanaam bañu doon saxlu lu xaraam ay jëw yooyu waaye da nga dugg lu sa yoon nekkul ci wax <laughs> te loolu mota wërse gis ko xamne dañ man day sama wërsëg mom aje nay ñaan fu ne nga ñaan lu fa eh, lu may nga fekk yow da nga dëkk ci dugg ci lu si yoon nekkul ni mën man la xañ wërse <laughs> ah. mota mi nga mota señ bi gis ci ci ci neex jox ko gis nga wax ne loolu mu wax ne bu fekkoon wax xaalis la noppi moom kon or lay doon or lay doon te noppi boo ko defee da ngay am jàmm dangay am jàmm ngok am na te fi ne bari na wax yoo xam ne danga koy wax mu xañ la lu ci sa borom loolu day am lool boo gisee nit yàlla am na ñoo xam ne daa wàññi bëccëg bi lañ fi wax sëñ mag bi bi muy taarif Masaalikul naan wax nañ ne boy mu nekk ak sëñ Mbacke Bousso foofu ci Mbacke am na ñuy wax ne boobu xam nga moom sëñ Mbacke bu dañu wax ne foofee la mënta mënta xewlu xewlu gu bari ndax boobu benn tibu baraay moom la ñuy xewloo ak genn euh, kubéeru sata la ba ëllëg ñu ci moom lañ la moom lañ nekk woon waaye am na ñu ne itam wax ji itam noonu la maanaam benn baat daanaka duñ ko wax sëñ booba daanaka kenn du wax ñëpp dañ naa cal rek ngok سنٹوا واحد مسالک نپلی وائی سی نام سے مطلب رومبو مکر فون مجھے کہ خبنے کا دار نے دف نام بھیر سم نیک daal di sama ba daal wax ak bakkanam na ko bakkan bi day yow nga xam ne tey moom man nga ma waaye nag dinaa la mbugal li ko mbugalee mooy dafa woor at moo xam ni da ko woor ngir mbugalee ko bakkan léegi dootu duggati lu yoonam nekkul <laughs> eh, Sëñ Tuubaa gis Sëñ Tuubaa jàmmante bi bi na nangu koon am na naar bu ma sa ñëw wax kay fa kay fa xaaluka naka sa mbir xam nga loolu ci jàmmante lañ ko ne ko xaalu naa tarku maa laa na maanaam sunu mbir mooy mooy lépp lu nu amulut solo lepp lo don ci dugg daana wax sax ne léeg-léeg ngay laaj nit fo nekkon mu laaj nan ma ngi beurep sangam ma ngi nangam xam nga wala fi dañoo bëgg li ñuy ab jàmm jàmm sante lañ ko wax ñoom moy jàmmant ya ne naka wa kër gi naka njabot gi naka soxna naka beurep sangam wax yo xam ni maanaam loolu lépp amulul yow mi mi koy laaj mi koy laaj sax ne buñ la ci tonto dula amul njëriñ <laughs> waye ay masla lañ ko jappé su tubaa waré wax musu ko nak am ko mësa a ñëw ci mom ne mu laaj ko waa dëkk tuddu dëkk bu dem mu tuddu ko di wax wax ju bari ba agal sëñ bi né ko rek buñ leen sama bëggoon fu ma leen laajé ngeen wax la no nga ci digënté islam ak iman ak islam ak ihsan waye na ma ngi bërepp sangam ak gëj na ma gëj na bërëb dem na bërepp sangam loolu <laughs> mom mom mom du la gën <laughs> ngok <clears throat> Euh, te saw làmmiñ boo ko téyee day day sàmmal jëf day tax say jëf du gaaw a yàqu ndax nit ñu baax ñu yàgg nañoo xam ne man kasura laxatuhu kasura saqtuhu koo xam ni ay waxam bari na bu yàggee nga gis jëfam ju baax yëpp <coughs> moo tax te euh, te itam ak mucc da cee ne boo téye soo làmmiñ moom kenn du la fekk fa nga ne dégg nga koo fi gis ñu naan ñu ngi koy wër ma bu yàgg yàgg benn waay boo ko xaw ma wax ci ab sëriñ télé bi sëñ boobu <laughs> bi <laughs> foofu na ne daal mu ne sëñ diw daal ko ko waxoon sax ma ne kilifa la waaye mu ne xamuñu fu ko yàlla siy tiim <laughs> العظيم waxinoo yàlla njëriñu seen ay yàlla si moom kenn ko waaye bu fekkoon téye na làmb xam nga lépp du ko ci fekk waaw moo tax ne moo tax am na suuf suufyaanu sawri suufyaanu wax ne laa tatakallam bi lisaanika maa taksiru bihi asnaanak wax ci saw làmmiñ lo xam moy dam damm say bëñ waaw te ne bu ne fi ne tey dañoo xam ne dëkk bu ne rek am na foo loo xam ne boo ko fa waxee balaa yàgg moom tey bañ rot moom wala boog loolu te loolu mooy di gën a woyof moom sa faatu sax xaj na ci waaw mu ngokk dajalaat am na tabsutanna lisaanaka fa yufsidu alayka sha'naka waaw bul boyal sawa làmmiñ rek lu ne mu tudd ko waaw moom la waykat bi wax ne ixfad lisaanaka laa taqulu fa tubtala inna albalaa muwakkalun bil mantiqi maanaam balaa yëpp musiba yëpp mi ci wu làmmiñ <clears throat> waaw nag mooy ki nga xam ne fex na ba téye aw làmmiñam lu dugg ci lu yoonam nekkul du wax <clears throat> lu yoonam nekkul waaw bu ko defee nag téye aw làmmiñ moo tax sëñ bi wax ne wa xifduna al alsuna min fax jëbbaaru du samay wax ne téye saw làmmiñ loolu moom farata la joo xam ne suñu boroom moo na ko gàll maanaam ñëpp a war a téye seen làmmiñ sàmm soo làmmiñ ba doo ci wax wax ju bon eh, ndax wax ji moom ñaare am benn nga wax lu baax wala nga wax maanaam yi wax yi moom am na ci wax yoo xam ne lu xaraam la moom loolu moom ab jullit waxuma laa ko murit moom waru koo jege moom di ko wax bu dee ju dagan nag sax dañ koy séddale fi ne Sëñ Tuubaa day dafa am ñaar dafa tuddee al mubaaxul muslih maanaam yi dagan da ko xaaj ñaari xaaj am na lu dagan loo xam ne da yóbbu ci lu baax moom moo mat a jëfandikoo waaye lu dagan loo xam ne tey masalan du la jural lenn gennu baax du la gën a jëme ci la gën a baax bu loolee lu dagan sax suñu daa wax ne nañ ko moytu al mubaaxul muslih wal mubaaxul mufsid yaakaar na noonu la ko tuddee mi ngoog Eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu rañaane ci riwaayaati xadisu eh, rañaan gi riwaayaat yu bari la waaye am na ci riwaaya yu bari yoo xam ne day wax ne day wax mbugalu ñi nga xam ne ñoo téyewut si woon seen seen seeni làmmiñ ak ñi daa jëw yonente bi wax na ne <clears throat> gis na nit dañ leen na sëggal ci ay ay medd ne leen faaw ngeen lekk te duñ ci bëgg dara medd moo xam ni sëñ moom kenn mosu koo gis ci ak naqari waaye waaye ñu leen forcé ci ñu lekk nee na bi mu laajee jibril ne ko ñi ñum doon mu ne ko ñii kat mooy ñi nga xam ne <clears throat> dañ daan lekk yàppi nit ñi mu suñ borom eh, da ko misaal dafa wax ne jëw mi ngi mel ni nga fekk sa mbokk mu tëdd ca biir armée ya nga sulli ko jël dagg ci yàpp wa di lekk noonu la ko misaalee waaw eh, moo tax Sëñ Tuubaa dara wax ne moom jëw doy na ci doy na ci ni ko suñu borom misaal rek misaal moom mi nga xam ne mu ñàngale nga xam ne yow boo ko déggee sax sa di daw loolu fi ma doy na ci ci nga war ko moytu xasbuka anna fil qur'ani tasbihuhu bi miitati insaani noonu la ko suñ bi waxee la suñu borom wax ne wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yaakula laxma axiihi mayitan mi ngok wax na ni sax ci yenn xadis yi ak yenn riwaayaat yi asar yi wax na ne yonte bi da mas naa dénk sayidna muaas ibnu jabal ne ko <clears throat> na nga moytu dere nit ñi ndax da ci am nit ñoo xam ne seen der posen la am na riwaaya boo xam ne yoo xam ne rawatina ñi nga xam ne ay borom ak ñi nga xam ne borom alxuraan lañ ñooñu moytul seen der ndax seen der boo ko dee jëfandikoo yaa ngi ko jëfandikoo posen te faw ëllëg des na la booleeg xaj ya ca biir sawara ñuy ñuy ñuy jaax ñuy caax sa yaram bi te boo da dund mu metti lool moo tax aw làmmiñ lu mat a lu mat a téye la te li li li li li mat a wax li lu ma gis yaakaar naa si si Abdourahmane ci ci ma gis dayre boo xam ne yàgg na yàgg na boobu boo xam ne daa sax def na ko ci kaset wax ne wax ne maanaam nañu moytu mo kii boobu jigéen ñi sax da ko doon dénk jigéen ñi mu ne na ngeen moytu jëw yooyu ndax ne léegi ku ci mënta ñàkk a jëw dangay fexe ba ku ci mënta ñàkk a wax waxtaan waxtaan yi jigéen ñi def dañuy fexe bay waxtaan mbaaxu sëñ bi <laughs> sëñ bi du jeex te moom loolu moom da ngay am tuyaaba boo ci waxtaan te maanaam li a doy mooy baat boo wax bind nañ tete te <clears throat> ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Ya, <clears throat> bin nañ ko te li ci gën a doy waar mooy des la koy jàngalaat fi ne li nga wax répété <laughs> ci sun borom ak nit ñu baax ñëpp teew ëllëg jaam ya jaam yow am na li fi ne nii kenn ku ne ci noonu rek am na kilifa yoo xam ne rus nga ñuy dégg ci yow yenn yi toogee ñoom da ngay wax te ëllëg maanaam buñ lay nettaliwaatal sa kàddu yooyu fi ne ñëpp koy fekke li ma daa nettali waaju xorom wax ne waajooju daa rapporté rapporté ci ci football yi mu laaj ne yow nga lu waay wax di nga ko waxaat ñu ne ko mu ne kon ne waa ji moom dana am jafe-jafe ndax ndax li wax lépp xam nga football bi moom day waxat lépp waaye da ko yem rek waaye ndax fi ñëpp la kenn ku ne li ngay wax fi ne ci ci bis boo ko boo ko xëy ma fi am na ci nit yàlla yoo xam ne dañ daa dañ daa nattu seen bopp ci fexe ba bis bi duñ ci wax lu ëpp fukki baat waaw Sëñ ci ñu bind rek am na ñu ne booba wax ji yépp mooy ndax waxtu wi jot na ak yu deme noonu loolu mooy ay kàddoom Sëñ Tuubaa ku néew wax la woon waaw <coughs> mi ngoog kon daal loolu moom mooy gàttalu lii sëñ bi wax sëñ bi nag da ci joxe misaal ci ñaari mbir mooy sàmm sa sunu la ci lépp lu ñaaw loolu moom yi ma wax sikki yëpp dugg na ci wax ne loolu sunu borom ci moom moo ko farataal moo ko waral ci yow kon war ngaa sàmm sa làmmiñ waaye wa min qabaixi alkalaami walyamin bil itqi wa talaaqi nag ci ñaari mbir goreel ab jaam ba jaam di am jaam moom amatul fi na <coughs> waaye masalan fase déranger manam akum sey rek lolou wax ci wax ju ñaaw seigne touba wax ne lolou moy li gëna a sam saw làmmiñ nak fofu manam sey day dañu wala fi dañu yag wax néegu sey dafa xat manam ñaar buñ dëkke ben nit man na la nuru ku bax lol waye bala nga ne bax na nga war laaj ñam dëkkal wala fi dañu wax ne ne nit diw bax na ndax da nga laaj ndax mbokk ya ko wax ndax ñi dëkk ak mom ngoram ñoo gis xat-xatam ñooy gis ñaaw làmmiñam loolu ñoo koy xam waaw ah, nit ki moom bu fekkee da ngay dem ci bërëb rek del siwaat ni fi ne man nga yar soo làmmiñ ba ba nga fay jóge moom waaw ah, ñëpp dañ yaakaar ne yow moom fa nga dëkk moom ñooy xam ci yow rawatina nag nit ki soxnaa moom mooy xam loolu di wax ne wax ne kon saw làmmiñ danga ko war a sàmm soxna nga bañ cee wax ak moom wax ju ñaaw soo demoon ba ngeen di tàggoo itam muy passé amit lépp rafet te bañ a ñaaw <coughs> loolu nag kon ci ndigal sëñ bi la moo tax nag li ma lu bari ba murit moom mooy yombut moo tax ma naan yombut ndax murit ginaaw la ci jiitu tere waaye sëñ tubaab bi mu wax mandargay murit saadix nga xam ne boo ko meree yow murit nga boo ko merut yow doo murit ñeent la ca wax ba njëkk ma asitqu fii mahabbati cheikh loolu moom neexut a gaaw a natt ndax kenn ku ne da koy woote mooy bëgg gu wér ci sëñ bi waaye ñaari ci topp mënees na natt moom mooy def ndigal bàyyi tere moom tusaalu amrihi xaysu warat maa ndigal li fu fu kàddoom roxte rek nga daal di nga daal koy gaaw jëfe te bañ a am lenn looy xaar maa looy mbaa looy néggandiku mbaa looy looy looy looy looy loo ci loo ci bàyyi xel su moom tisaalu loolu mooy murit nga te ndigal sëñ moom mooy yii moom yii moom moom xëy na moom yëpp neexuta nag manam defandoo mom ndax señ bi gis na ne waye ku ci jéem dara mom da nga raw sax maas xëy tay man gis na foo xam señ bi dafa wax ne dafa manam maanaam bor bu kenn lepp fenn xaw ko bom aw lol ndigalam ñu néew ko jëfe fi ci muridi eh? te ab lettre la bind kenn ci mag ñi ne ko mboolem bor yi nga am yépp fay ko te ya, bu lebati te te kayit bi nag bu kenn amati bor ndax bor day yàq wa tax nak ndigere sëñ mom waye nak ku ci ko gis mu ci góorgóorlu da ci jëm kem katanam mom faaw rek moy raw ki motax murid di lu di lu di lu reuy manam murid mom sëñ bi moy li gëna kawé kawe ci dundul Islam, gëna kawé kawe reuy a ah, ci dundul islam mu ñëw ci beneen mbir nag mooy <clears throat> wala taqrabu zina wala al muqaddamat li wajhi baaqin xuuruhu muqaddamat loolu yaakaar naa ne lu ñu waxoon keroog te mooy <clears throat> njaalo bul ko bul ko jege ak mooy muqaddamatu zina njaalo bu doon ab bërëb mi ngi mel ne ab néeg la ci mooy néeg bi ne ci biir kër gi bala nga ci àgg da am buntu boy jaar da am yu koy jiitu xool moo ko jiitu foofu ngay tàmbalee ci moytu xool dam sab gis waaw dam sab gis ndax gis moom bu amee rek fitna mën naa daa tàmbale judd waaw moo tax sab gis <coughs> foofu la tàmbalee xool bu amee rek mën naa jur maanaam moo tax ci lislaam yonente bi daa waxoon sayidna ali ne ko ali la tutbi'i an nadrata an nadra manam ben xol bul xol xolat manam sebet buñ mënta ñaka teggu ci ci jigen lo xamni dañu da ko warona neub la jigen lepp haw awra la bam dess xar kanamam wara feñal li ci dess lepp da ko wara neub da sol ciol gu jet jot baña yarax baña dang baña euh, baña baña baña baña xat léegi nak bu ko deful nak yow bo bu sa beut tego dara ci mom rek gawal teggi be te bul tegat lo tek te teggi lol lol moom ñoo ñu ngi lay daal bindal bakkar mu fekkee da nga tek sa beut rek lol mo xam nga xol ko ci télé wala nga xol ko ci loolu télé yam fi ne bo doon seetaan journal surtout jamono ji nga xane mom moom ji gëna doy war mom nga xane mom moom ñi moom dañoo bàyyeetul xel sam ak ciol mom da melni kenn ku ne ci ñom la gëna doy war fi ne mo lay gëna neex mo leen di gëna neex journal yooyu fi ne gis nga xam ni seen yaram weebu da nekk ci biti yoo xam ni kenn mësu ko dee moo tax Cheikh Abdou Khoulous gis ci mujj gi bi bi bët yi muuroo maa gis sëñ Cheikh Abdou ñaan ma de mas na koy bind na ko lettre ay ay yoon sax boobu mu nekk France di ko wax ne ko daal nangam nangam waaye ba mu ñëwee sëñ bi da ko wax ne ko maanaam lettre yëpp dégg naa ko waaye fi ne damay sant yàlla ndax jamono ji moom ginnaaw mënoo foo toll di sëgg ginnaaw mënoo di sëgg yow bu la yàlla dimbalee ba say bët muuru danga war a sant te loolu mooy mooy li wér fi ne moom bañ loolu kooku mooy jàmbar dëkk dëkk ki ko man kooku mooy jàmbaroom ay xol xaraam moom maanaam fi ne mucc ci moom lu jafe jafe jafe jafe jafe la waaw lu jafe jafe jafe jafe la maanaam ku ko bëgg moom faaw ay facebook yo ndax facebook moom boo xool booy xool sax fitne faaw nga gis photo yoo xam ne moom dafa dangay xool teg sa bët la <laughs> moo tax te loolu mooy buntum njaalo njaalo ci xool la tàmbalee <clears throat> raw suñu borom euh, waxoon yonente bi ne ko qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furuji xaddul basar moo koy jur boo mënta téye sa bët <clears throat> bul sikk ne yow <clears throat> sa sa sa maana njaaloo moom doo ci mucc doo ci gaaw a mucc moom moo tax eh, Sëñ Tuubaa bi mu aayee njaaloo dafa xam ne muqaddamaatu zina muqaddamaatu zina nag mooy la waajoon nadratun fa kalaamun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaaw loolu waaji wax nazara moom mooy jiitu mooy xool mooy jur ibtisaama muuñ ay muuñ yooyu nag mooy indi ay salaam mooy nuyoonte kalam juddu ay wax juddu moy ay randew randew nak bu amé musiba da tàmbali am euh fini nak jamono ji nak mom gis naa ya, li ma ta moy muccu muccu dal gis na ma ta ñaan ndax tubaab yi seenu dundu dañ dañ ko dañ dañ ko dañ ko tuxal aduna bi legi dafa gëndalo ay internet yooyu tax legi lañuy ñuy dund ci amerique fini ne ñi ci dëkk bi da nga gis ñu diko dundu te tubaab moom dañoo dañoo dem ba yàqu moom nga xam ne moom moom moom moom moom ñoom dañoo dem ba jaaxle ci seen bopp ma ne lay lay lay yër diraasa étude yoo xam ne <coughs> day wax ci masalal mbirum njaalo ci ci euh, ci diggante Amérique maanaam li ñoo Occident mooy diggante Amérique <coughs> euh, ak ak ak ak ak maanaam bu mooy Amérique ak Europe mooy li féete sow waaw li ñu féete sow maanaam li féete foofa fi mu ne at mu ne ci Amérique dañuy wax ne gën jaa néew millions yi millions yi jigéen dana ëmb ci ëmbam njaaloo nga xam ne moom daanaka foofu moom dundu dundu gu kenn xamut moom Eh, ba tey wax nañ ne eh, ñi nga xam ne moom dañuy ànd rek nga xam ne moom moom tëkkante wuñ loolu bu dee bu dee ci Amérique ma yoo jël ñaar fukk ak ñaar ya ci ay ci ci ay jëkkër yi maanaam ay ay ay ay nit ak soxnaam xamal ne téeméer boo jël ñaar fukk ñaar ya moom tëkkante wuñ moom dañuy ànd noonu rek <laughs> nga xam ne amut amut amut kii moo tax boo boolee boo boolee Amérique Amérique Europe la fa dëkk lépp boo leen xaajoo ñetti xaaj benn xaaj bi sulus bi ci doomi njàll lañ te loolu fi ne tey marché bi gën a dox ci ci ci Amérique mooy marché li ñuy wax jaay sa bopp loolu moom maanaam at mu ne gën jaa néew trillion trillion dollar mooy marché wàllu jaay jaay sa bop yalla yalla musal ci baat yoy sax mom tuddu ko ko donc te loolu maanaam yenen yenen yi mi andal da bari xëy na tey naan da moom daanaka mën nga ne maanaam du du jafé jafé jafe kër yi lañu ñuy nan sangara tukh yamba ak yenen xeeti tukh yi loolu ci goné ba ñuy judd lañ ko doog a tàmbali bu dee am doom fat ko mom mom ijihad maanaam ëmb ëmb yàq ëmb bi loolu moom maanaam maanaam at mu ne wax nañ ne gën jaa néew million ak ñaari ak juróomi téeméer ak ñaar ci ci ci junni dañ dañ yàq seen i ëmb man ëmb yàq ëmb moom du dara moom moom léegi moom ngay dem sa hôpital ñu ñu yàqal la ko nga xam xale bi léeg day dem ba xaw a nar a judd ñu xar ko nga xam dañ koy seeyal dañ koy def am na nuñ koy wanee ci ay kii yoo xale bi dañ nit la moom <laughs> rey nit la ndax ndax nit ki bu amé ba am ñent wër rek fi ne ruh gi daal ne dugg ci moy mooy roh fan ak fukk ak ñaar fukk ruux di daal dugg ci xalé bi koku boko ko gur nit ni ray moom mi ngoog loolu nag <coughs> masalan ñay nga nga ñu ne gor gor lu ba samp kër sax nga xam ne dañuy dem ñu maye leen ci ci diiné am fi ne ñoña dañuy wax ne bo sétlo fu melni angleterre masalan juróom ñaar fukki kër maanaam njaboot njaboot yooyu nga xam ne tey dañoo dañoo ànd ci takkante juróom ñaar fukk yi ak juróom ñeent jëg 80 pour cent yi jigéen ñoom dañoo seetlu ne seen borom kër moom yëmuñ ci ñoom benn dañuy gën di di caaxaan ak fu ne mi dugg <laughs> lu xorom maanaam caaxaan ak mooy yàlla foofa du fa am na sama mbokk mu baax fii la ne dama koy bañ a tudd ndax net li waaye hmm, Europe di fa liggéey doon liggéey ci hôtel waaye nee na nee maanaam nit ànd na ak soxnaam góor gi ñëw ci moom de ne ko yow sama soxna si daa bëgg ngeen ngeen ngeen seq nga loolu kenn sunu mbokk ku baax mooy bañ a tur yi waaye loolu lu maanaam loola nag moo moo moo mooy mooy liy tuxu jëm si ci noonu maanaam njaalo moom fi mu ne foofi foofi lañ ci jëm yàlla yàlla musal ci loolu <coughs> yal na yàlla ci yàlla ci yàlla musal moo tax sëñ bi nag <coughs> leen dong nu musal mooy dénkaane sëñ bi ak ndigalam loolu buñ ko defee mucc waaw loolu nag képp koo xam ni da koy def da koy def lii sëñ bi wax li wajhi baaqin laa taqrabu zina wala al muqaddamat li wajhi baaqin xuuruhu muaddamat da nga koy def ngir jëm yàlla xam nga nit ki bëgg mooy yàlla kooku moom ya ne mbindeef man na dox digganteem ak mooy yalla ndax bo wéetee ba kenn gisula fi na ne na rek nga xam yow lepp lu bon mi ngi ci téléphone mom téléphone bu tuti bo man nga ak mom fu te lepp lu bon man nga ci man nga ko def koku nak lenn kese kese kese moko ko musal la nga xam bo boo da ngay xam yalla mi ngi lay gis alimun bi sudur ah ngok alam yaalam bi anna allaha yara nga xam ne yàlla mi ngi lay gis te yow li ngay def yëmut ci gis la de dadaa booleeg malaayika yoo xam ne dañ lay filmer fi ne loo def ñu filme ko jël say wax jël jël image bi yow man lépp dañ ko teg fi kanam ñépp nag sëñ Tuubaa sa maam yu baax yaag ñu tegal la film bi nga tiim yooyu di xool loolu gàcce gënu ko rëy maanaam loolu dugg sawara sax ko tane <laughs> moo tax yowmal xiyaam gàcce gune lañ fay gis gàcce gune lañ lañ fay gis waaw te beneen mbir da ci mooy yow day mel ne yow yàlla rusoo ko daal yow nit ñi nga gën a rus am na loo xam ne boo nekkee ci biir nit ñi doo def da koy sax wane ne yow nekkoo ci dëddu dëddulu waaye boo duggee ci biir dégg nga maam nekk ci te yàlla moom yaalamu xaainata layuni wa ma tux fi sudur man yàlla dara wumbu ko ci li nga def mi ngi lay gis bi anna allaha yara ma yàlla lépp mi ngi gis xabirun bi ma yasnauna inna allaha xabirun bi ma yasnauna kon loolu it lu matamat la njaalo moom mooy li gën a kii fi boo xele boo seete fi ne xeetu wéra di gune mi nga am fi ne te yonent boo waxoon na ne bu njaaloo bare yàlla dana nattoo ay xeeti wéradi yoo xam ne du ko mën a faj fi tey médecine li ñuy wax médecine moderne ni mu avancé nga xam ne tey daanaka fi ne lu ñu mën a faj amut waaye bu set wéradi gu bees juddu li ñuy wax ay sida yu kenn xamut nga xam ne moom daanaka njaaloo rek nag moom mooy fi ne dañ lay wax ne yeneen dana ko sabab bari mu njaaloo la moom waaw yan yàlla musal ci loolu kon <coughs> loolu it sëñ bi dénk na ko murit yëpp wax ne laa taqrabu zina bu leen ko jege bu ko jege bu ko jege nag di ko di di ca di di ko jëfandikoo waaw walal muqaddamaat yi nga xam ne moo mooy bunti njaalo itam bul ca bul ca bul ko jege mukk bul xool lu xaram boo ko defee da nga mucc ci yu bare bare bare mën na maa cee dugg sax foofu ci mbirum bët ndax sëñ bi ca ci ci bay di ci topp di wax ne bil ayni laa tandur li shay'in haruma loolu moo la ci musal bil ayni laa tandur li shay'in haruma bal xuddaha anhu takun muhtarama maanaam sa bët bi bul ci xool lu na nga damm sab gis loolu sëñ Tuubaa digle waaw loolu sëñ Tuubaa digle te loolu yàlla ko njëkk a digle qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum dalika azka lahum inna allaha xabirum bi ma yasnauna aaya boobu imaam alxasali dafa ne ñett ngi ab yar ngi ci ni ku xam dara la ci yàlla waaye ak yeetee ngi ci ak xuppe itam mi ngi ci yar bi ci ne tadib bi ci ne mooy li mu wax ne qul lil muminina yaxuddu min absaarihim te yàlla ginnaaw ab sang sab police bi rek buñ xewé né wa dëkk bi dee leen def nangam loolu moom gis nga fi ne ñu bari dañ ko da tambalé bàyyi xel moom waaw maanaam te police du dara fi kanam sun borom tabaraka taala mi nga xam ne moo la sàkk te am kattan gu yemul fenn te mën koo ci yow fi sa mu gumbaal ko masal te boo gumba fi ne maanaam gumba yow fi ne boo ci àggagut doo mën a xam ba ne bu la xañoonu gis gis nga xam ne mënoo gis fi mu ne sag dund da daat naqari moom dara doo ci bokkati moom lépp loo xam ne jiitaloon nañ la ci dañ la daal di te des lay lijjanti itam wanne ko sax boo ci dem dañ lay da ngay am koo atal mu muy gis seen lépp di la di la jubbante ak orienté maanaam xéewalub gis xéewalub gis waru ko jëfandikoo ci ci yooyu <laughs> te lépp loo gis day tàmp ci sa ci sa xol xam nga maa ngi doon wax keroog ne xol seetu seetu faw dara tàmpe ci moom li nga li ngay gis nag li ngay gis nag mooy tàppe ci xol bi fi ne tey fekkee da ngay seetaan ay film ak ay journal ak yu kenn xamut ñëw bëgg a julli sa sa xel mi yëpp ca journal ba leen ne ak ci la nga doon déglu waaw na léegi nag whatsapp yi nga xam ne moom bi seet ñu yónnee la loo xam ne moom boo ko dëkkalut loolu moo gaaw ci dog la moom ila yow din doo dem fenn te mën nga yàqu sax nag maanaam tuuti njariñ da ci ne waaye lor ji day day ëpp léeg-léeg lor ji day ëpp ab yara ngi ci ci li imaamul Xasaali wax maa ne yàlla moo ko digle te yàlla kat tey buur boo xam ne su nee bul def nangam su nee bul def nangam loolu kenn ku ne war na ko war na ko bàyyi xel yeete gi mooy li mu wax ne dalika azka lahum waane loolu gën mën a jur moom moo gën a mën a jur eh, moo gën a mën a sellal sa xol gën a mën a defar sa bakkan loolu <clears throat> tazkiya mooy tathir rek mooy laabal maanaam boo xoolut lu bon fi ne yonente sax wax na ko walla bokk wax na ne sahmun mi iblis nazara xool lu xaraam loolu maanaam maanaam maanaam fett la balu fett la ci bari fett iblis yi fi ne boo dee lu xol lu xaraam nag xam ne iblis moom jam na la bari fett yu bare bari yow moom xaw tu rek mu faagagal na moom loo ci doon rek mu daaneel la mu nërmel na moom te kii xool lu xaraam ma mënta yëg neexiitu jaamu yàlla am na neexiit woo xam ni dara yemut ni moom ne koy misaal fi ne gis nit yi ñoo xam ni bànneexi adduna yëpp dañ ko fi daan ñukk ci masalan ak julleeg yu kenn xamut te dafa am luñ ci bànneex buñ ci boo xam ne dara melut di moom maanaam amul bànneex ci kaw suuf ci bànneex yiñ xam yépp nag bu ci xaw a dend ak moom amu ci euh, ibnu arab ibnu ibnu euh, kii abdul aziz dabaax si abdul aziz dabaax bokk dafa wax ne bànneex bi nit yàlla yi yëg <coughs> ci jaamu yàlla moom la ko doon misaal mi ngi mel ne adduna lu mel ne bànneexub sëy masalan nga ne moo ci doole buñ xaaj maanaam bànneex bee gaa yi yëg buñ ko xaajee ñetti junni xaaj jël benn xaaj ba xaajaat ko ko ñetti junni xaaj benn boobu nag mooy xaw a dend ak bànneexub sëy ak mboolem di gën a neex ci kaw suuf masalan ci xeeti bànneex yi ci kaw suuf dara melu ni ba neex boobu yi nag nga xam ne mooy bànneexu jaamu yàlla xalaawatul iman dégg nga xool lu xaraam dala koy xaj fi ne mën ngay def jaamu yàlla yi waaye doo ci benn bànneex day mujj jaamu yalla sax day mujj metti ñett ci yow daanaka du la saw dal julli gi sax daanaka fi ne mën a rek waye ci ñi gëna gor gorul na sax nak ñoo nga xam ne moom dinañ ba def ko moom waaye daanaka duñ ci yëg dara mom motax suñu borom wax ne na ngeen dam seenu ci ndax zalika azka lahum waye batay euh lu moy moy damu sab gis lu moy de sëñ bo waxoon beeri wa innaka وإذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر ولا عليه ولا عن بعده أنت صابر أو كما قال دفع والأمر الذي إن توسعت موارده ذاقت عليك المصادر موي بوالي ديف لو نيغا ne nga xool ko booyal sab gis bis nga gis loo xam ni nga dana bu ndax ben do ci mëna jot bo ci mënta jot nak ci choono ngay dëkk te la ëppoon solo bo do ci mëna téné ndax li mo lay soxlal ay gis xalé bo xamni ne day bëgg lu bax lool rawat nak ci école yi tubab yi mom fofu la kii mom ngay gis ko xamni bëgg lu bax lool té tam di waye ben bis lay gis ci jigen lo xamni nam dad na koy wëlbati mom mo tax jigen ni sëñ bi moom yow ma xiyam boo gisee yonte bi yonte bi ba mu demee sawara nee na jigéen ñi la gis ñoo ëpp ndax jafe-jafe yu bare bari ñoo ko yóbbee maanaam gis xale boo xam ci jàmbar lool ci jàng yitteem jëpp ci jàng ay day mujj yitteem dootu nekk jàng yeneen lay doon am na loo xam ne boo gisee maanaam mën a laa jural fitna joo xam ni dégg nga doo ko mën a lijjanti loolu moo leen di jural ñuy dem ci internet ak lu ne ñu koy xool ay ni film ak kan xamul te loolu du leen mën a euh, maanaam woyofalal dañuy ñuy jànkonteel te loolu luñ bindal waji rek fi ne ginaaw ba ci bakkar dañ ko masalan ba mu teg ko lolé dañ yalla musal ci ci ci mo tax nak eh, sëñ tuba daal lii mu wax moy moy moy moy buntu bi moy bal bal xuddaha an hutakun muhtarama kon da ngay dam sab gis eh, xuppe bi nak moy inna allaha khabirun bima yasnauna suñ borom def lepp xamna ko mang ci tek beut yaalamu xaainata al ayun wa ma tux fi sudur loolu kon mm, moom lu ma tabaay xel la waaw waaw bari na lu ñuy wax ci mbirum ci nit yalla yi loo xam ni kenn ko ne maanaam yàlla buntam ubewul ci kanam ken wa baabullahi lam yakku murtaja loolu la Sëñ Tuubaa buntum yàlla ubewut lépp loo dégg ne xéwale na ko xewala na ko ab jaam itam maanaam jàppal ne mën na ko xéwale ku ne yow sax mën na la ko xewale waaye nag am na bët yoo xam ne bët boo xam ne rëkk ci xol xaram kooku mënta teg ci mënta tegu ci ci ci ci yenn mbiri sunu borom yi tabaraka wa taala waaw la waa ji wax ne wa kayfa tara layla bi aynin tara biha siwaha wa ma tahartaha bil madamii bët boo xam ne bëgg nga caa gis yàlla bëgg nga caa xool suñu borom ëlëk suñu borom aljana la neex neex gis yalla ko dakk man aljana du dara fi wetu gis gis suñu borom tabaraka taala ndax suñu borom yu yënte bax wa aljana bu nekk ci seenu xewal ba xewal ya ki suñu borom da leen wax ne waaw ah, fi ne yene nga ci xewal ñun nag moom ñoo ngi sant bu baaxa a baax amu baax amatul benn jafe-jafe àjjana moom boo fa duggee jeex na amatoo benn jafe-jafe mom sa dara du metti amutul manam amutul ben len la jafew ñak sax amu fa amutu tangor amu jëfi diine yi ñuy def amutu fa xewlu rek moom ma tastahilan wa taladu laayun waaye xewal googi ak li muy am am solo sun borom da leen laaj waaw fi ne sant ngeen ñu ne ko waaw waaye loolu du ñëpp ñenn ñi lay doon mu ne leen ah am na loo xam ne kon dinaa leen ko yokkal ñu ne ko fi kay amatul len lu mën a dolli koom fi nee na mu murit leen jëmmam ja waaye nee na buñ ko gisee dañuy fàtte mboolem àjjana ak lañ nekkee woon ci ay bànneex ndax yàlla moo dàqaloon lépp waaw lilladina ahsanul xusna wa ziyaada ziyaada mooy an nazar ila wajhillahi subhanahu wa taala xool jëmmi suñu borom ji lay ñoom àjjana taxu leen di jaamu yàlla àjjana moom lekk yeeg naan yeeg yooyu loolu maanaam ñii nga xam ne jullit ñi gën a simple suñu classe gi xëy na ñooñu ñooñ ñooñ ñoo moom loolu tax a waaye murid dëgg-dëgg sax fi ne loolu du ko tax a waaw mu di dëgg-dëgg jëmmi yàlla ji gis nañ ku mel ne ibnul farid bi muy waaj a faatu xisa bu gudd la dañ ko nettali li xam ne suñu borom da ko da ko wuññil moo xool àjjana yaag neexidu ak mbir yu rafet ya waaye dafa wicc bopp ba ne da ko da in taku manzilati fil xubbi indakum ma qad raaytu faqad dayaatu ay maanaam bu fekkee yow lii nga mën a rafayee man yàq naa sama wax du sama taam yi ma doon def lépp ci ay kër kër lii taxu mu woon a jug sa jëm moo moo moo maanaam gis sa jëm ji man ko teg bët ndax mboolem loo gis mu neex mbaa mu rafet yàlla ko sàkk man yàlla mi sàkk loolu moo dàq lépp wala yonte wax ne inna allaha yuhibbul jamaala moo tax waaye nag boo dee xool lu xaraam nag moom ëllëg doo mën a gis yàlla moom daal mën ngaa nekk ca lekk yaag naan dexi soow yeeg dexi <laughs> dégg nga moo nag sëñ Tuba ne bil ayni laa tandur li shay'in bul xool mukk lu xaraam ci sa bët bi bal xuddaha anhu takun muxtarama dammal sab gis boo ko defee muxtaram yow dañ lay respecté sax maa nis ki nga nit ki nga xam day xool lu xaraam dëkk ci nii kooku sax siyaam day am jafe-jafe nafsiyan du du du du du doon kii maanaam am na ji àgg nañ ci ilmu nafsi àgg na ci yow boo dee xool lu xaram am na ji maanaam am na nuñ koy xam ne yow fi ne da ngay xool lu xaram ñiy seetaan film yu bon yu demee ñooñu euh, ilmu nafsi àgg na ci xam maanaam seen maanaam seen seen xar du bokk xar kanam yi ci des ngok dalay dalay jural dalay jural ay yàq sa sa saxsiya sa personnalité kenn du la respecté du am fulla ci lenn kii da ngay doye di dal li ci lool bu fekkee ne yow moom am nga dogu ak mën a jihaad rek sa bakkan ba doo xal lu xaram kooku li sëñ bi wax takun muxtarama taar boo xam ni ak respect boo xam ni ku la gis dana dana la jox cër waaw yàlla yàlla musal ci xol lu xaram lu jafe la ci jamono ji ndax boo dee seetaan journal sax bu faaw nga <laughs> faaw nga xool ndax kii journal du sol du sol moom moom léegi gis ngeen ñi journal li ñu sol te télé yi daa mel ne ñoom bala ñoo am lu leen neex dañoo jël jigéen ko muy journal maanaam góor guy journal wala koy wax loolu moom neexu leen maanaam télé yeeg mboolem ñiy jaay fi ne bitig bi sax ñu gis ñiy jaay léegi da ngay wut teg ci wet gi bu ko defee <laughs> moom bu sol col goo xam ne dara du ca baax benn waay bu xorofu di wax ne moom nee bitigam bi bi ci inde ben soxna mu nek fa bitig bi da gën dox dox gis teel a yeek wari yeek yoy yooyu gis ay jigeen ñoo ci man ay dina goor ñi amna ñu ñak so amna amna ñu am jafé jafé ñoo xamni ne buñ maanaam bitigu goor ñee bi jigeen ci goor ñi yalla yalla musul ci yu baloon nag kon daal loolu yàlla mom bo legge ñu kon ci usnu la tastamiya bil usni lil manahi xaf intiqaama amirin wa nahi ñu tàmbalee foofu boo léegi mën nañu taxaw foofu bu amee benn laaj wala ñu mottale ko waaw de yow keroog laajoon nga ko xeeti bakkan yi eh, dañoo wute am na an nafsul ammaaratu bi suu juróom-ñaari bakkan lañ maa xamul nag dana fi xajam déet Eh, waaye juróom-ñaari xeeti bakkan lañ am na an nafsul bi suu am na eh, lawaama am na waaw mi nga ko am na an nafsu lawaama am na itam an nafsu al al mutmainna ak al raadiya ak eh, al mardiya ak mi nga ko yaakaar naa dégg nañ ko ba tey léegi nag yooyu moom benn bokk ci sa morom masalan noonu sunu classe gi nga xam ne tey demagul fenn nafsul ammaara bi suu lañu lañuy kii lañuy yor mooy bakkan bi <coughs> mooy li suñu wax inna nafsa la ammaaratun <coughs> bi suu mooy da waxtu mu ne lu bon bakkan bi maanaam bu julli bu guddi jotee nga na naa jug naafi la da wax ne tëddal sëñ bi tëddal ndox mi dafa sedd te fi ne <laughs> maa la tëddal la lay wax maanaam toujours lam lay digal du doon lu baax moo tax borom bakkan boobu bokk na ci li ñu koy xàmmee mooy nay day day day xëri itam maanaam maanaam maanaam fi ne bu lekk am teewoon fii sax yitteem mooy ëppale ci moom maanaam moom day xër ci lépp moom amal itam maanaam toujours itam maanaam day bari ay mébét ba tey day rëy itam day rëy yëg boppam fexoo bànneex yi bakkanam itam day day day day day day nek ci xam nga banex léeg-léeg mu gem nit ki dana dem ba daanaka banex yu bari do ko yëgati ne amna na xale bi nga da fay da fay ay juróom ñaar at ba yaat koku am po ak defar ay ay oto firndi fer yoyu mom moy ban bo weesoo fofu nak nek ci sinul muraaxaqa ay fukki at ñatt yoyu ci la sa bànneex yi bakkan gëna gëna gën a ci ñobaxtal gi daal si yitte jëpp mooy mu fexe ba satisfaire sa bànneex yooyu waaye nag banneex yooyu day dem ba woyof nag day ba giim ba daanaka du la du la du la yitteelati nafsul amaara bi suu nag loolu la nit ki mën naa dem ba màggataale ko nag bànneex yooyu nekk ci moom maanaam di di jeqiku waxtu wu ne mu jéem a seet nu mu ko nu mu ko nu mu ko satisfaire te du man ko mën a satisfaire ndax de day waxtu ne mi mi ngi mi ngi yuy jàq ko loolu ci mandarga yi nafsul amara bi sura ñaan masalan ak càggan sàggante sagan ci tuddu yalla ak mer tang yooyu ci nafsul amara bi sura tang ci tang nak ak xadab lolou manam manam ci lo xamni bu dee lu neex yalla lolou tang ci ak mer ca bu fekkee la tax ngay tang lolou l'islam la lolou dar gis nga kilifa yu bax yi ñu gis ñoo dañuy tang man sëñ mag bi ñu wax ne fi ne mag ñi amul ci kenn ku ne daanaka tang na ci yow ma amul kenn ci mag ñi ko xam mu ci na ci loolu amna bis mom mu tang ci yow ba nga japp ne la xam waaye ci lu melni rek nak ci lu bax ak ak bëgg leen jubante yoy tang nak ci lo xamni mer mo xam lu may manam li jënd sa bop ak bëgg ñu gis la ak bëgg fardu sa saytara ak yu deme non lolu ci melo euh, amara bi suura manam koku dal moy bakkan man nit ki buy dogo tambali tàmbali lay nga xam ne jikko yu bon yëpp lay dëkk ci xolam moom góorgóorlu nag ci lu baax ak rawatina tudd yàlla gu bari ak xidma ak yi deme noonu yooyu moo ko yóbbu ci nafsul aw nafsul lawaama mooy <coughs> mooy mooy da koy yedd bakkan bi nga xam ne bu dee bëgg a xool lu xaram sax bakkan bi ci moo ko njëkk a yedd xaram na lislaam da ko bañ de nga xam ne léeg mu dellu gannaaw léeg mu continuer rek <laughs> kooku it am nay melo melo mooy maanaam loolu suñu borom tudd na ko wax na la uqsimu bi nafsi lawaama nafsi lawaama wax na ne ay melo mooy day bari lu muy yedd boppam waaye xaar lu bari itam waaye day naw jëfam itam lu bari fi ne lu mu def lu mu koy naw fi bu jullee julli farata yi julli gépp day tàmbali am jàpp ne moom xadd na kaaba gi moom fi ne itam day bari itam lu mi dingat fi ne ni muy ni mi yedde bobu non lay yedde day bari lu mi critiquer lu way def dana dana dana ko dana ko critiquer lol fi ne lu lu fess la day gis ño xani manay maanaam nit mënta def lu bax fi seen kanam faaw ñu critiquer dem amul kenn ku mucc ci ñom ku ñu wax ju ne ah, bax na waye kat mom kat nangam dal bu bu du woon nangam daal moom <laughs> maanaam faaw ñu gis sik ci yow i'tirad ala al xalqi loolu ci sifaati nafsi la waam la bokk ak lu mel ngistal riya ngistal gu nëbb mooy masalan li muy def yàllaay tax waaye léeg-léeg ci xolam dana bëgg nit ñi xam ko <laughs> mën naa tëdd bu guddi ba ñëpp tëdd mu jug di julli waaye loolu bu ko nit bettoon fi ne du bëgg kenn gis ko waaye bu ko nit bettoon xam ko loolu moom dana ko neex ci xolam <laughs> ak xubbu suwara ak bëgg a siiw bëgg a siiw ak bëgg ñëpp xam la waaw fi loolu loolu dal ci mandarga la nafsul lawwaama la bokk loolu damay bu waykar buñ ko toppee day jël gën a jël temps loolu boo ñu defal ko waxtaan moom buñ ci àggee ci am buntu tasawur buñ ci àggee yëpp dañ ñëw ginnaaw ba nafsul mulhama moo ci topp dama ko dama ko mulhama mooy li ma wa nafsu wa ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nafsul mulhama <clears throat> moom fekk maanaam nit ki bu góorgóorlu gën a góorgóorlu ci la mujj nag bakkanam di àgg ci nafsul mulhama foofu nag lay gën a tane ndax moom day tabe day doylu itam xam-xam da koy ñor day woyof itam day mën a lewet lewet lu itam donte lewetut day mën a gàddu téye maanaam maanaam dañ day mën a lor dañ koy mën a lor mu muñ day mën a gàddu ak téye ak euh, dégg nga am muñ lor yi nga xam ne moom lañ koy lor day jéggale itam dégg nga <coughs> day bëgg itam nit ñi baax ñim den la bi rek bëgg ñu baax ba pare itam léeg-léeg itam boo amee ngant da koy nangu maanaam boo defee dara te ngant waral ko ak njuumte da lay nongul njuumte lay loolu ci mandargay nafsul mulham la waaye moom it foofu it lay tàmbalee gis ne yàlla moo téye maanaam ñëpp yàlla moo moo téye ci seen mooy doxal lépp foofu la koy tàmbalee gis eh, nga xam ne day mujj ci mujjam mujj buy génn ci bakkan boobu day mujj maanaam dara dootu ko naqari lépp da ci gis ngërëm rida la ciy gis ndax day xam ne yàlla mooy doxal lépp foofu la ko tàmbalee foofu nag batay fi lay tàmbale yenen ni melo itam melo jiko yu bari fi lay tàmbale nek ci xolam moy day bari day bëgg yalla nga ne boy wax lu lu bax wala lu aju ci yalla wala mu ku jank ci dama salam day gaaw jeexital ci mom nga gis day bari joy itam day bari li joy yi dem non ngok nit ñi itam duñ ko saf manam jaxso bu metti bi day tambali du bëggati euh mi itam moy yalla yalla mbirum yalla da koy ñor léeg mu tiit lool waaye léeg-léeg moo am yaakaar lool ba nga xam ne day jàpp ne moom moom fi ne àjjana faw ah, du ragal dara <laughs> ngok moom loolu la ñuy wax talwin talwin mooy mooy léeg mu mel nii léeg mu mel nii mën nga gis fi ne mu sawar lool waaye man nga ko sax mi <laughs> ngoog léeg-léeg xuyaam itam ci melo yooyu la xuyaam mooy tey bu diggee kàddu gu neex dont man kàddu gi man naa wax leneen ne man ku mel ne kàddu gu neex rek ku ne day jeexital ci xolam donte kàddu gi waxut lu jëm ci yàlla ak yu demee loolu mooy mooy meloy sul mulhama ak yu bare bare maanaam maanaam xar kanam it léeg-léeg day day day day bari day tàmbali di belli nga xam ne xar kanam day tàlli muy mbég xam ne waxtu day bég farax billahi da koy da koy da koy da koy yomb dégg nga day wax itam mbiri ni waxi gaay yàlla yeeg nit yàlla yeeg mbiri tasawuf ak arifun bi yooyu seen net li ñor foofu nag dañuy wax ne bu fa àggee ab sëriñ nag la war a wuti bu ko mut nag maanaam seytaane man na ko gàttandu bu fa génnee nag lay dugg nag ci an nafsul mutmainna yaa ayyuha nafsu yaa ayyatuha nafsul mutmainna mutmainna nag am na melo am na nuñ koy xamee yu bëree bëri nafsul radiya moo ci topp nafsul mardiya nafsul kaamila nag doog cee topp loolu bu ci ne am na nu ko nit yàlla yi waxee waaye boo gisee melo yi danga xam ne di léeg nga gis nag ku mel nii ba mu yàgg mu dëpp delluwaat ca am ma rabi suuf yàlla loolu day am yàlla yàlla defal tawfeex te eh, defal du ndimbal daraja Sëñ Tuubaa yaakaar naa laaj boobu mënees na ko yaakaar am daa beneen inna allaha jamilun aji taaru waaw yuhibbul jamaala yuhibbul jamaal jamaal mooy ab yàlla dafay ku taaru te bëgg lu taaru waaye taaru yàlla nag wuute nag bokkuñu dara yii moom taar yi nga gis ci adduna yëpp ci adduna maanaam loola loola loola loola ma ay suwar la ak ay mazahir ci aslul jamaal deug deug tar nak moy taru sun borom taru yalla itam bokkut ak taar yi xisiye taru xisiye ni moy xar kanam bu rafet ak kaddu yow gi demono demoon noonu yooyu bokkuñu ba tey fi ne tay <clears throat> dafa am banex yo xamni masal tay masal na sa nek nek president jiite rew mepp banex bobu fi ne am na ñoo xam ne moo leen daqal adduna ak li ci biir na taxa bàyyi lekk bàyyi naan dëkk ci àll bi kër kër fu ne nga dugg fa wax lu ñor wax lu ñor nga digg ko ba ngir mën a nekk président rek ante ah, loolu bànneex la boo xam ni masalan bu ko dëkk xis yi li ma wax mooy jamaal boobu it noonu maanaam agul ci jamaal bëggul ci jamaal xis yi bi daal am na ko nit yàlla yi was foo incha allah xëy na du ñàkk bis ñu ñu ñëw ci yaakaar naa mën nañu taxaw foofu aoudu bismillahi arrahmani